bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna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 uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mu ne ñu la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewali ma yokk mu ñuy wax ne wa ataakum kulli ma saaltumuh mooy ki ñuy jox lépp luñ ko ñaan mu teg si wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuuha bu ngeen fi nekk di géem lim di géem a xayma xéewal yaleen yàlla defal du ngeen ko musa peeg du ngeen ko musa xam du ngeen ko musa matal ba tax na ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala me ñu yenkeewal kilimaa yi nga xamante ne dañ ne bu fekkente ne dañ ko doon jaay am na dut mën am njig bi bu doo dañ ko doon jënd am nañu ko dut mën jënd waaye ci mbaaxam ci mànduteem mu tàggatal ñu climat boo xamante ne du ñëpp ko mun a fekkee du ñëpp ko mun a waaye xanaa du dafa fekk ne rek climat bi yaa layta ñu bokk xam la nekk ci climat bi ci njariñ la nekk ci climat bi ci xeetu bénéfice lakin ma al asaf malheureusement ñu bëri xamuñu la climat bi di wundu waaye waxtaan ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ci waxtu wi ñu jukkil leen lenn ci ngëneel ya nekk ci climat boobu di climat wu fajar mu doon waxtu woo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala may nañu waxtu su niw ci ginnaaw ñu jëfandikoo la nga xamante ne mooy waxtu woowu ñiy jëfandikoo ko ci nodd waaye am ñu ko jëfandikoo ci dem wuyu noddukat boobu di woote ñépp taxaw ci néegu yàlla ba ñu naan masjid ñu daldi joxe waxtu wu am importance ci moment boobu bokk na ci importance su fajar boobu ñu jukkil leen si rekk ñetti faida boo xamante ne waxtuy fajar am na ko ci xeetu njariñ kon ñuy ñaan yàlla suñu borom yan nañu ko yàlla yombalal bi ñu war a mën a teewee waxtuy fajar woowu ci néegu yàlla yeeg wootekat bi di woote naan kaay leen ci julli kaay ci texe julli bi nga xamante ne moo leen di jokkaleeg seeni borom waaye texe bi nga xamante ne ci julli ngeen koy amee moo tax nga dégg noddukat bi muy wax hayya alal salaah ñaari yoon mu naan hayya alal falaah ñaari yoon kaay leen ci julli julli bi nga xamante ne moo leen di jokkale ak seen borom waaye kaay ci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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح alsalaatu xayrun min annawm alsalaatu xayrun min annawm allahu akbar illa allah daa'iman wa abadan laa ilaha illa allah allahumma rabba haadihi dacwati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan caliya rafica wa bacathu allahumma maqaaman mahmuudan allati wacadtahu innaka laa tuxlifu almicaad radaytu billahi rabba wa bi islaama diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula mbokk yi yan jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñuy jéggalu ci baat bi di jéggalu ci nekkin bi waaye sonorisation beeg baat beek kàddu gi képp ku ko dégg ci jàkk yi moomaa kilimaaw fajar seddaay bi di la ëpp allahu akbar yàlla di la yënkeewal ngelaw bu neex nga nekk ci sa kawlal mel ni ka ma xam waaye ah gannaaw bu mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar mu xam ngéneelu fajar ci waxtaan bay jaar ci Rewmi FM 97.5 gannaaw bu noddukat bi noddee màggaayu yàlla mu seede ne amul benn buur bu fi nekk ku ñu war a jaamu ku dut yàlla mu seede ne Muhammad dëgg la yàllaa ko yënni mu naan kaay leen ci julli te moo tax yàlla bind leen de kaay leen julli bu leen di jokkaleeg seeni boroom waaye kaay leen ci texe bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci lenn bépp rencontation ba ngeen di am fii ci àddina ak képp ku ngeen di rencontré ci rencontation bu ngeen fa am texe bu toll nii la ngeen di am mais ci julli ba ngeen di rencontré ak seen borom waaye kaay leen ci texe boobu waaye waay noddukat bi daal di wax ne yàlla ma gën a wax ma gayu yàlla ñaari yoon mu daal di tij nodd bi ne amul benn buur bu fi nekk di yàlla kudut yàlla yàlla rek a fi nekk di yàlla kay leen ñu bokk jaamu ko kon boo xamee maanaa noddukat bi la muy wax ci nodd bi du la bàyyi ci kaw lal nga tidd am na ñu ko xamul dañoo defe ne waa ji day nodd rek day yuuxu ci micro bi waaye tànnam tàmm nañ tamit mbokk noddukat bi tamit baat bi neex nga xam li ngay wax lu mu doon fa nga war a yëkkati nga yëkkati fu nga war a yemale nga yemale fu nga war a wàccee nga wàcce mu boole kooku neexal ko tuuti nga xamante ne da ngay jox motivation ka lay déglu mu tayal a ñëw jàkka ja waaye bu déggee nodd bi nu mu nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko baarale niñ ni ñu dajee nodd bi nga xamante ne waaye bu mu doon comme sama bos de ah, am na borom baat yu neex yu fi nekk macha allah ñoo xamante ne daal yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla wéral seen baat bu ñu noddee wallahi boo tayalee sax da ngay jóg dem julli ndax nodd bi du la bàyyi nga nekk léegi léegi nag micro bi moo koy xaw a sabote nañ leen defar jumtukaay ba ñuy waxee turu yàlla nañ leen defar jumtuwaay ba ñuy noddee képp ku ko defar ci jàkk boo ko mun di defaree xamal ni képp ku ñu wuyu si nodd boobu bu jullee dinañ la épargnel yow ci sa tiyaabo ci say téere jëf kooku lu mu julli ndax yaa tax mu dégg nodd bi ay raccourci ay bénéfice yaa ngi fii ay promotion yoo xamante ne ñu defee ne promotion yi gars yi di sànni suñu waxukaay loolu mooy promotion promotion yaa ngi fii de wallahi promotion yaa ngi fi xam nañ ko du mooyu ko wala ñàkk kaa xam promotion la yàlla moo gën a ëpp promotion bu mu teg ci penc bi li fi nekk mooy seytaane moo ñu koy bañ a won wala ñu sàggane diñ ko xam wala ñu bañ koo sóorale suñuy programme imagine micro buy xor-xore jàkk micro boo xamante ne duñ fa tàggee duñ fa wax la dara lu yàlla màgg na kaay leen julli kaay ci la di jokkale seen borom kaay ci texe micro boobu muy xor-xore mënoo jël ni benn micro bu vingt-cinq millions teg ko fa boo ko fa tegee saa yu ñu noddee noddukat bi tiyaaba ba muy am moom lañ lay bindal ci say téeree jëf yow mi ko jënd benn ñaareel képp ku ñëw julli si bu ñëwee julli parce que dafa dégg nodd boobu bu jullee julli ba mu def yiw bi dinañ ko ko fay moom mu julli waaye na tamit ah xamal ne dinañ la partager dañ leen la partager tiyaabo ci sa ci sa téere jëf yow mi jënd micro loolu du promotion subhaanallah mbokk yi kon lañ leen xoolaat suñu bopp mbokk yi noddukat bi nodd na jamonoy fajar moo ne faridatul fajar bokk na ci fartay fajar mooy tajaaluka fi zimmatillah lay tax a nekk ci keru yàlla ci ña yàlla aar ci ñi yàlla keral sunnatul fajar sunnay fajar xayru min addunia wa ma fiha moo gën àddina ak li ci biiram quraanul fajar inna quraanul fajar kaana mashhuuda alquran ba ñuy jàng ci fajar moo xam ci ginnaaw imam moo xam ba nga jàng boo julee fajar ba noppi moo xam banga nga jàng laata ngay juri fajar nee na alquran boobu dalay seede keroog bés penc nee na jamilu fajar nee na lu rafet kese kese kese rek ngay xool waa mu ne demal xool ko ci waxtuy fajar liman adrakahu nag waa kañ waa taaru fajar melokaanu fajar beauté fajar ki ko bëgg xam mooy ki ko nangoo fekkee ci jamonoom ci waxtoom ci jàkka ji waaw kañ kon jamono bi da di jamono bu cher moo tax ñu ne bu dee dañ ko doon jaay kenn di ko mën a jënd bu dee dañ ko doon jënd tamit kenn du ko mën a jënd ba tax na réew Rewmi FM 97.5 Euh, ñu andil leen importance ba nekk ci waxtu wi nga xamante ne ca la ñu yàlla wërsëgal ñu di ko dund waxtu wi am na waxtu ju si jot a génn waaye ba léegi taxut a deñ ba léegi ñu ngi ci waxtu bi ci boppam jeexagul fekk bët di set wala fekk jant bi di waaj a fenk mbokk yi. yal jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ne suñu temu jamono ji mooy xam-xam ak sàkku xam-xam ak ngineel ba nekk ci xam-xam ci boppam walla ngineel ba nekk ci sàkku xam-xam xam ngeen ne ñun ñooy ummatul iqra ñun ñooy xeetu kañi naan seen yonent bi ne jàng ñun ñooy xeetu ku ñu naan suñu yonent bi jàngal ñun lañu wax suñu yonent bi ne na nga jàng walla jàngal kon buñ ne kilifa bi na nga jàng ña topp kilifa bi moom xawma lu leen war lu leen warul waaye du ñàkk jàng waaw ah, ñàkk jàng moom warul ña topp kilifa boobu njabootu kilifa boobu ñoo war jàng ba fu jàng nekkul ndegem suñu kilifa lañu wax ne jàngal kon képp ku bokk ci njabootu kilifa boobu xawma lu ko war xawma lu ko warul waaye du ñàkk jàng njabootu kilifa boobu ñoo wara jàng ba yëy këyit yi waaw kañ ba tax na ñu fas yéene wéttalante ki yéen lenn ci importance su xam-xam ba tax ñu jël lenn ci béréb yi tabax fa daara madrasa walla ekol ñu ne jàngalekat moo fa war a nekk bi léegi ñu ne ka war a jàng moo fa war a jëm ñu ne matériel ya nekk mooy jumtuwaay yamu war a jànge léegi nag nañu jël saar bu njëkk wàcc ci alqur'an mooy suratul alaq a'udu billahi min asheytaani rajim buur yàlla ne ci saar bi keroog jibril dafa fekk yonentu bi ci xaaru Hira ci xuntu ba mu am la mu jëflantek ñoom mu am lu mu jëflantek moom mu am lu mu melok moom ci biir jëflante bi amaana xissa bi du fi xaj waaye ci biir melokaan boobu mu daldi ko wax ni iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bilqalam allama al insaana maa lam yaalam sadaqa allahu al azim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot keroog yéen a ngi fàttaliku ba jibril alayhi salaam fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir xunta ba mu nekkoon xunt boo xamante ne ñu ne moo nekkoon xaaru Hira yonent bi di doon xelaat kawteefu boromam mu di fa dugg di xelaat mbindaafoonu boromam muy am ay science ay xeetu xelaat ya muy xelaat ca yàlla ba keroog yàlla yónnee ko malaaka bu ñu naan jibril alayhi salaam nañu jël jibril boobu def ko professeur ñu jël def ko mu muallim ñu jël jibril def ko sëriñu daara ñu jël yenentu ne dañuy joxe misaal rek ñu jël yenentu def ko mu doon kay waaj a jël bind naam kon sëriñu daara bi ñëw na fekk na ka mu war a jox bind mu ne ko jàngal mu ne ko jàngal ki war a jël bind ne ko la may jàng mu ne ko dama ne nga jàng ki war a jël bind mu ne ko la may jàng ban leçon lay jàng man jànguma xawma lu ñuy jàngee xawma luy jàng ci boppam kon man lan laa war a jàng sëriñu daara bi daal di moom jëflante bu xaw a gàll góose jëflante bu xaw a doy waar mu naan ko jàngal ah jàngal sa turu boroom waaw jàngal sa turu boroom gis nga waxu ko ne jàngal sama tur waxu ko ne jàngal fa ma jógee waxu ko ne jàngal fa nga jóge waxu ko ne jàngal dëkk bi nga nekk waxu ko ne jàngal bërëb ba ñu nekk da ko ne jàngal sa turu boroom iqra yonent bi ne ko ma ana bi qaari'in ne ko dama ne iqra cànga ma ana bi man duma jàngkat xaw ma lu ñuy jànge ma sax luy jàng jibril ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal sa borom bi nga xamante ne moo bind lépp gis nga jàngal sa turu borom waxu ko ne jàngal turu yàlla waxu ko ne jàngal turu arrahman waxu ko ne jàngal turu arrahim waxu ko ne jàngal turu almalik walla yeneen turu yàlla yi fii turu yàlla asmaullahi lu rububiya la ko jibril jàngal fii ne ko jàngal turu yàlla mi moom jàngal turu yàlla mi nga xamante ne ci moomeelam la lépp nekk amul dara ba dara booloo jeex lu ginn ci moomeelu yàlla moo tax mu ne ko sa borom yow kila moom waaw jàngal sa turu borom yow gis nga moomeelu yàlla jibril mu ngi ko njëkke jàngal yenentu bi ci xuntu bi ci moom ci boppam ci yenentu bi ci boppam mu ne ko ndegem xam nga ne yàllaa la moom waaye sëriñ ba ñëw ngir jox la bind moo la koy gën a feddalil moo la koy gën a leeralal léegi sikki sakk amu fi ne yàllaa la boom moo tax mu ne ko iqra bismi rabbika jàngal sa turu borom alladi borom bi nga xamante ne yaa ngi ci moomelam te moo la moom waaye mooy borom bi nga xamante ne xalaqa muy ki bind lépp amul dara lu fi nekk dudut yàllaa ko bind ci moomeelu yàlla nekk waaw mu ne ko jàngal sa turu borom bi nga xamante ne xalaqal insaana min alaq moo bind doomu aadama créé ko def ko mu doon koo xamante ne njëlbeenu mbindam doonte ban la ci suñu maam aadama waaye mu daldi di transformer mbindinu doomu aadama beneen format mu doon loo xamante ne dafa wékku dafa aju loolu ku dem xool na doomu aadama bi di transformé wu ba mu doon la ko yàlla sopp mu doon ko dangay gis ne dafa am fa yàlla aj la mu aj foofu mu aj loolu mu aj foofu kon doomu aadama borom baa ngi nii di ko wax ne xalaqal insaana moo bind doomu aadama ba dëkkee di fàtte rekk fàttekat bi mooy nit min alax ci lu ñu wékk ci lu ñu acc waaw boobu mënul xej waxtaan wi ndax loolu beneen débat la mu ne bi léegi iqra wa rabbukal akram nanga nga jàng sa turu borom bi nga xamante ne moo teral la teral ci xeetu taraang ya jox doomu aadama yi ak nam ko séddalee iqra jàngal wa rabbukal akram sa turu borom bu tedd bi iqra jàngal wa rabbukal akram sa turu borom bu kawe bi bu teral doomu aadama jox ko taraanga ndax yalla mu ngi ñu naan ci alquran wa ma bikum min nicmatin fa min allah amul dara ci xeetu xéewal wa ngeen yore yeen doomu aadama yi lu dul fa yàlla la bàyyee ko ndax mu ngi ñu doon wax ci alquran mooy buur bi nga xamante ne moo leen génne ci seen biiru yaay te xamu leen dara allahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan yàlla mooy ki leen génne ci seen biiru yaay xamu leen dara bi ngeen doon gane si àddina xamu leen tuus ba dara booloo jeex mu am lu mu leen defar ngir ngeen xàmmee ko ngeen sant ko ci loolu moo tax mu ne iqra jàngal wa rabbukal akram sa turu borom bi nga xamante ne moo doon buur bu tedd moo joxe taraanga yi moo séddale taraanga yi mooy teral ku ko soob ndax taraanga dëgg dëgg dëgg fa moom la bàyyee ko jalla wa ala mu daal di ko ci tegal ne alladi mooy buur bi nga xamante ne allama bil qalam moo xamal jumtuwaay ba ndongo daara bi di jàng mu doon xalima mu doon xalima ba nga xamante ne muy bind alladi mooy buur bi nga xamante ne allama xamal na bil qalam bindukaay ba nga xamante ne moo wara a bind ci lawhul mahfuus bi maqaadirul ashiya kulluhum jalla wa ala mu xamal xalima ba nar a bind ci lawhul mahfuus nekkinu mbir yeeg mbindaafoon yeeg seen nekkin ak nu ñuy nekkee ak seeni melokaan mboolem seen allahu akbar am na lenn ci boroom xam-xam yi ñu ne yàlla keroog bu mu ne xalima bi ne octobre mu ne xalima bi ne bindal xalima bi ne ko lan lay bind mu ne ko dama ne nga bind xalima bi laaj yàlla lan lay bind mu ne ko bindal maqaadirul asiyaa kulluhum bindal lépp loo xamante ne soob ngir mu doon ngir mu nekk ak nu muy nekke ñu ne keroog la xalimam bi bind ba mu fet ba mu xar moo tax ci daara ji ndeysaan boo boo boo boo doon defar sa xalima ba ngay bind boo ci noppee waaw catu xalima bi bu ñawee dangay jël xalima bi daldi ko xar ci digg allahu akbar ngir mu mun a muucu daabi ngir nga war ko war a mën a bindee yàlla ñu yàlla fayal suñu séeruñu daara yal leen yàlla yërëm yal leen yàlla xaare arjan xam-xam bi fi bàyyi xam-xam yiñ fi bàyyi yan na ko yàlla def leer ak yërmandeeg jiggalaakoor foofu ñu nekk ci barsax amin ya rabbal alamin kenn du suñu séeruñu daara yi yal leen yàlla yokk yërmande ñu ne keroog ba yàlla waxee xalima ne bindal xalima bi nee na lan lay bind yàlla ne bindal lépp la ma soob ak li ma bëgg ak nu ñuy nekkee ak seeni nekkin xalima bi daal commencé di bind di bind di mu xar xareet moo tax ndongo daara wax ma ndongo daara léegi de ndongo daara ci jamono ba daara doon daara ah, kañ jamono jooju lañ doon wax waaw ah, <laughs> taatu cin taatu cin yi lañ doon lañ doon xoos ah, di ko def di ko def jamono soppeeku na allahu akbar jamono soppeeku na Mouhamadou Bachir jamono soppeeku na jamono soppeeku na wallahi jamono soppeeku na waaye ala kulli xaalin noonu la dund bi moo mel noonu day soppeeku waaw day jógee ci anam bi dem ci beneen anam ñu ne keroog la xalima bind ba mu xar-xareet ba tax na ndongo daara ci jamono ba daara doon daara buñ doon xostaatu cin ngir fàggu ay daa xalima boobu ñuy bind dañ koy les ba mu ñaw ñu daldi di jël catu xalima bi xar ko ngir xalima bi mën a muucu daa su ko defee ñu mën a bind kon xar-xaru xalima bi ba nangoo daara bi di def ci daara ja fii la ko jële yàlla ne yonent bi ba léegi yàlla mi xamal xalima bi nar a bind yàlla moomu moo xamal allamal insaana maa lam yaalam yàlla moomu moo xamal doomu aadama bi la xamul bu yàlla xamalee doomu aadama bi lamu xamul léeg-léeg nga gis ko naan waaw ustaas moom lu muy wax ni lu mu doon ñu ne la luñ lay wax ni mooy yàlla moo la xamal la nga xamalul lu teera teer appareil téléphone ba nga yore logiciel ya nekk ay programme ya fa nekk jàngoo ko fenn ku la ko jaay jàngalu la ko appareil téléphone ba nekk sa loxo nga yore yow mi may déglu bëgg a poser bi dañ ne la question bi poser nga ko ci sa xel ñu ngi lay tontu allamal insaana maa lam ya'lam yàlla mooy ki xamal doomu aadama bi la mu xamul boo ne loolu ñuy wax nu mu nekkee ñu ne la téléphone appareil ba nekk sa loxo ku la ko jaay xaalis bu seer jënd nga ko cinq cent mille moo ne cinq cent mille boobu noonu tegul la la ban la la école yóbbul la école te tegul baa nga toog ngir mu wax la fonctionnement téléphone boobu nu muy demee ba mu la ko jaayee la ci pare lenn rek la am ak yow affaire moo ne garantil naa la ko un an wala six mois bu amee bengeñenge wala mu am tolof tolof andi ko ma jox la beneen jeex na garanti boobu rek la la yoreel am na ñoo xamante ne sax du ngeen sëq garantie boobu jaay naa la jënd nga ko xalaas intax la amru demal ma dem waaw léegi nag pour nga xam téléphone boobu lu koy doxal ak lu ko dul doxal ak lu koy nuy wuyoo nooy yónnee message nooy bàyyi vocal ak ñoom seen loolu logiciel boobu yàlla installé na ko sa biir bopp ba pare ndax xam na ne sa dund dina toll moment yoo xamante ne di nga soxla téléphone léegi imaginel ñu ne léegi jënd nga téléphone cinq cent mille nga war a fay deux cent mille francs pour dem toog nga def formation pour jàng ko affaire bi kañ lay sotti kon jaay nañ la téléphone pare nga léegi yàlla ci manduteem ak ci sopp bu la sopp ngir sa dund bi ñoŋ yow doomu aadama mu jekk nga bañ a perte temps mu installé la ci sa biir bopp xam-xam boo xamante ne téléphone bi dysfonctionnement lépp lu koy doxal installé na ko sa bopp waaw téléphone bi nekk sa disposition amuloo dara li ngay jëfandikoo téléphone boobu ak xam-xam ba la yàlla roof ci logiciel bu muy installé ci sa biir bopp nga di fa xool lu bon nga di fa wax lu ñaaw nga di si tas kër nga di si wili pande ay secret doomu aadama est-ce que xam nga ki nga doon yow doomu aadama boobu mel nii est-ce que xam nga ki la yenkee wal xam-xam boobu mooy kan est-ce que xam nga li nga yor mooy lan waaye képp ku yàlla won yoon bu jub nga jël téléphone boobu di ci defar ay diggante di si wax dégg nga di si jàngale di si won nit ñi la ñuy amee njëriñu àddina ak njëriñu àllaaxira yaay ki raw sànni karawaas yaa kii ma njëkk a wax nii de waaw ah, ki ma njëkk wax nii yaa tane ko waaw ndax yàlla jox na la logiciel ci sa bopp ngir nga mën a manipuler téléphone bi jox na ko logiciel ci boppam ngir moom it mu war a mën a manipuler téléphone am yow ngay manipuler sa téléphone jëmale ko ila ma yuhibbuhu llah wa yarda ngay manipuler sa téléphone jëmale ko ci fépp fu yàlla gërëm mu doon fu mu sopp moom muy manipuler téléphone am feneen fu yàlla gërëmul kon yaay yaa gën a tane keneen ki ñu wax ni mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yatabiuna ahsana ñay joxe xibaar ñu ngi nii taxaw fasi ne leen jibal béréb bi allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahuma ya rabbi